parce que bis mel nii rek lañ ko deseel ginnaaw toog di ñaan bis bi dopp lañu deseel Gaston te Gaston ñu di diggaaleel ku ci nekk am nga histoire boo mën a wax sa diggante ak Gaston rek ñu ngi nuyu ñëpp di sant yàlla di julli ci yonent bi di nuyu bu baax le représentant du président de la république monsieur le ministre ñu ngi lay di nuyu monsieur Abdoulaye Dieng di nuyu bu baax Aminata Mbengue Ndiaye Aminata Mbengue Ndiaye du rek affaire présidente bu ko Conseil déedéet da di suñu jigéen di nuyu Aminata Touré ci teewaayam ñun xam nañu relation bi mu seetoon ak Gaston Mbengue bu nu toogee fii wala ñu ànd li ñuy bokk di ko defandoo ak Gaston Mbengue mu am benn évolution bu ci am. jël ko ba yóbbu ko bitim réew bu ñu demee Bercy Gaston Mbengue moo tax ñun ñu dem Bercy Bercy bu Gaston Mbengue ci wàllu bi nga xam ne moom la ñu seet keroog bi ñu duggee ci wàllu làmb ci bureau la ñu jëkk a dugg xel ma mun waxoon ñu war koo doxalee ci wàllu làmb ba boobu ba tey jii ci la ne Gaston Mbengue ci loolu la mos di liggéey yàkkamti na mais Gaston Mbengue dafa tax ay kër ñu tabax ko. Gaston Mbengue dafa tax ay xale am ay kër ay kër laa wax Gaston Mbengue dafa tax ay nit créer ay société Gaston Mbengue dafa tax ay xale yu ndaw yoo xam ne kenn xamu leen woon ñu xam leen ci adduna ku mel noonu bu fi jógee ak discipline sportive bi nga xamante ni moom la taxawoon da ci liggéey ñi nga xam ne ñoom la ko seqaloon ñu ngi fii toog ñooñu il faut mu am ñoo xamante ni ni ñu ko mel ni man ma seede ci seede yi ma ci seede ñoo ko jaw maa ngi lay jaale Max Mbarga Mbaye sa maa ngi lay jaale maa ngi jaale képp koo xamante ni yow ak Gaston Mbaye da ngeen daan ànd guddi ak bëccëg parce que Gaston ñun la xam Gaston ñun ñoo doon ay wéttalam Gaston lu mu mus a def musul tëgg benn làmb avant mu koy tëgg ñëwul ci man ni ma damaa bëgg a tëgg làmb nangam. garab ba mu créé CLAF dem ci El Hadj Dias daf ko woo woo ma ma toog El Hadj Dias liggéey ci liggéey boo xam ne liggéey bu rafet loolu moo doon liggéeyam kon nit ki li mu li nga xam ne moo doon kon liggéeyam bu fi jógee nañ ko wax Gaston Mbengue yàlla na ko yàlla xare àjjana Gaston Mbengue ñu ngi koy ñaanal di ñaanal réew mi réew mi yàlla def ci jàmm asalaamaaleykum wa rahmatulah. yëpp ñu am nekk koo xamante ni école la ci làmb nekk suñu papa nekk suñu lépp délégation bu ci nekk rek mu am relation bu mu am ak yàlla jële ko fi ñu ngi ñaan suñu borom xale baa gën a di koo xam ne référence la koo ni nag comme ni may jàppale na ay jeunes yoo xam ne nekk père de famille nga gérer sa famille yàlla jaaree ko ci donc percussion ñu ngi koy jaare makka mi mhm. nga xamante ni mooy taxaw bi mhm. ak njaboot bi ak famille yëpp mhm. di ko jaare montalaan bi yëpp di ko jaare sama mbokk mbër yëpp di ko jaare ñëpp daal di ko ban anecdote ban anecdote mu mën a jox bari na bari na man suma père la wala sama combat yu bari tëgg na ko sama combat bu mujj bi tëgg na ko dem naa seeti ko këram ñaari yoon ci feebar dem fekk ko fa ñaanal ko yàlla rek comme ni ma ko témoigné ñëpp dégg ko rek mhm. ma ne ko am nañu yaakaar ci yow bu baax a baax parce que dafa am ay doomu jàmbur yoo xam ne jàppale nga leen mhm. ñu jàppale seen i waajur mhm. jàppale nga leen ñu ñu ñu malaanu sutura képp ku ñu àndal te loolu bu ko suñu borom fay rek may wax rek am na mbër yóbbu seen yaay mag am na mbër yu tabax kër lépp ci moom la jaar man mii tey sama dund bu amee njëriñ lool dugal na ci loxoom. noonu la kooku moo ñu dëdd. noonu la tey ñu seetlu tamit ci mu nekkoon liggéeykat bu mag ci bésu fête du travail premier mai ci bésu CLAF bi nga xam ne moo ko moo ko créé woon mu dëddu ci ci ñaari bés yooyu ban coïncidence ak ban jàngat nga ci am waaw loolu fitna la rek wane na ne nitu valeur la nit bu gëm liggéey la mhm. comme ni nga ko waxee comme ni nga wax léegi dafa am solo man yàggul yóbbu naa sama papa suma yaay Màkka mhm. te avance bi ñu ma jox te foofu laa jaaree pour yóbbu ko donc loolu dafa am solo bu baax a baax mhm. donc ñun loolu yëpp ñu am tamit même buñ ci amee bànneex

assise du gouvernement bi yëpp ñoo ànd ak samay naataango le vice conseiller Ousseynou Ly ànd ak tamit directeur de cabinet de euh, madame le ministre des sports di Moussa Diouf ñu ñëwoon tey ay tànku ndaw ñu kilifa di wër ni ñu suuri sëram di magam di madame la présidente ñu ñëw présenter ko seen condoléance au nom du Sénégal euh, suñu taxawaay tey nag dafa am ñaari dafa am ñaari direction bu naa ko waxee noonu ndax dañu ñëw jaal waaye te dañu ñëw toog pour recevoir di jaar yi ndax madame la présidente euh, si ñun la bokk ci état la bokk donc moo am dëkk waaye fi ma taxaw moom mën na war na fi na taxaw ci jaale famille bi ndax dafa bokk ci président de la République ak ñu ànd ak moom fi ñuy jooy nag noonu laa ko mën a waxee ci doomu Sénégal ci fànn yëpp njaay yi ñu koy d'abord yónnee ci li nga xam ne mooy famille am madame la présidente ak ay doomam euh, ay soxnaam certainement di leen wax ne président de la république ak le premier ministre ak le gouvernement ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak ñoom di métti dooli xew ñu ngi dugal njaal yooyu tamit ci famille sportive gis naa ko sens président bu nos gis nañ ci CNG le ministère des sports mu ngi si ñu ngi jaale donc toute la famille sportive football basket yeneen discours yëpp moom ñu mais spécialement le monde de la lutte bu ñu paree ñu ngi jubal ñu ngi jox jaaree la famille des communicateurs traditionnels ndax seen présence tey wane na fi fi jógee am na ci wàllu bu bari donc doyen si sa tour ñu ngi lay jox njaalu président de la tout le gouvernement de séddale ko famille bi yëpp euh, le président Bassirou wax ñu ñëw parce que moment bi ñuy wax ak yéen dañu nekk conseil des ministres euh, loolu moo tax délégation bi ñu obligé ñu wàññi ko mu fekkee mën nañu noonu waaye bu soobee yàlla le DC bi mu ngi toog ministre le DC du sport madame la ministre certainement dina xool bu génnee conseil bi xool xëy na lu ñuy fekk les familles foofu ñëw fekk tamit ndax la dimension de l'homme bu ñëw perte tey dafa euh, jox kàddu gi bëri yoo xam ne ñun ñi ñëpp amaan na xamuñu biiram waaye xam nañu bite boo xoolee sama wàllu bopp su ma fàttali boo ko ginnaaw ba vingt cinq ans Gaston dafa mos a nekk ci domaine yu am ñu bëri ñoo xam ne ci jeunesse bay moom moo leen lu gën bu fekkee mu lañ ko noonu moo leen jëlee yëkkati leen ba tey ñu doon ay mukkalaf ci dëkk bi am fi taxawaay yoo xam ne ñëpp rafetlu nañ ku mel noonu bu jëndoo dañuy ñaan yàlla mu remplacé ñu ko ndax moom doomu moo ko mën yal na ko yàlla xare àjjana yal na ko yàlla ubbil euh, buntu Firdaws yal nañ ko euh, yàgg joxe ba mu nekk exemple Sénégal euh, tous a a gagné yal na am yal njabootam jëndale bi yal na la yàlla may doole ngeen ko sangoon maanaam moom la ko jox mu mën ko continuer donc bu bañ a guddal ñu ngi masawu autant que yéen ñëpp li fi xew ndax naqar bu amee tiis a koy wax ji dañu nekk ay ndaw moo tax ñu def ko jël mais mën nañ toog rek nopp ndax tiis bu amee léeg-léeg wax dafay métti waaye nag nit ak maqaamam ak tolluwaayam mooy tax nga war a témoin ndax nee nañ malaaka dañuy taxaw di jël témoin te avant na mun na servir quelque chose ci fi bu njëkk am nañ ci yaakaar ndax témoignage bi ñu dégg wan nañ leen nit ki o moom maanaam mën nañu am si moom yaakaar yàlla na ko yàlla def yàlla na ko yàlla xaaral ak yàlla pour bañ a euh, guddal madame la présidente malgré parce que moo xam léegi léegi monsieur le président de la république monsieur le premier ministre